mooy euh, dox ci dëkk bi xool bërëb yi nga xamante ni bii nawet da leen di noggatu muy bërëb yi nga xamante ni bii koñ boo ci mënti dem wala commune boo ci mënti dugg bu tawee askan ya fa yeewoo danañ am ay loolu nag li mu indi mooy ñeenti ñetti communes yi Thiès nord Thiès ouest est ak la ville ñoom ñoo boole seen doole seen xam-xam seen man-man ak seen pas ci xool nu ñuy indi ay solution ci lii wëlbatiku woo service yi nga bi ci biir cees ñoom la yoon dogal ni ñoom ñoo am capacité ñoom la yoon may doole yi liggéey ci wàllu woowu ñu ànd ak ñoom pour xool lan mooy problème yi gis nañu nag problème bokk na ci problème yi li indi solution yi wàllu euh, yàkkali wàllu dindi mbalit wàllu xoos maanaam li ñu lépp lu ñu mën a tuddee wàllu curage mais bokk na ci solution yi tamit ñu seet ñun askan wi képp ku ci nekk ci sa biir ban àq ngay entretenir ban àq ngay séq yow ak li la wër yow ak sa jamono yow ak sa jaww yow ak sa keew ci wàllu solution yooyu nga xam ne moom la war a apporter. bi ñu ko xoolee liñ ci gis mooy euh, canaux yu ci bëree bëri bëri li ko fat mbalit la mbalit lañ ciy sotti <laughs> loolu buñ doon liggéey li ñuy def nii tey coono gi ñu ci daj ak suba ñoo technique bi ñu war a def buñ ko defee ba noppi jël xaalis def ko ci curé bu ñu wëlbatikoo wane ginnaaw ni ñu jalaat mbalit sànniwaat ko ca place yooyu dafay mel ni li tubaab di wax eternel recommencement amul njëriñ li ñuy wax mooy nañ ñu dimbali ci lii ndax ñun bu ñu koy def euh, askan moo tax ñu koy def ku ci nekk na ci xool ban contribution la ci mën a indi ku ci mën a yëkkati junni dugal ko ci wala ñu ñëw ne la jëlal mbuus di ñuy ñaan yàlla bu kenn sànneeti mbuus bu kenn sànneeti xeer bu kenn sànneeti mbalit ci biir kano yi bu ñu defee suñu liggéey nag ànd ak service yëpp am nañ yaakaar que solution yi ñu indi Euh, bu nawet bi ñëwee euh, jaax jaaxle yi doon am dootul amati. solution yi nag conjointe comme ko waxee parce que intercommunalité gis nañ ne dafa fës ci seen action. waaw dama ni solution yi am na solution yoo xam ni jooni jooni la euh, mën na mën na ñëw am na solution yoo xam ni faaw ñu téem koo jiim koo tàllal ci ci ci ci at yi ci fan yi di ñëw muy yoo xam ni mënut a sotti léegi loolu dañ ciy liggéey li nga wax nag muy dig-digloo bi ci ñetti communes yi ak commune de ville bi ñu bëgg cee indi li ñuy woowee dajale sunuy doole. moy li tubaab di wax intercommunalité ñun loolu lañ décidé bu ngeen seetloo ñun non lañ defee campagne euh duma aw sànni ma xeer presse mais ñun suñu campagne gars yi gisuñu ñu won parce que nekk ñu won ak ñun <laughs> mais non lañ campagne euh, non lañ gagné. non lañu mais information lañuy créer duñu woo kenn pour information mi ngi nii woowuñu leen ñow ñëw ngeen. non non woowuñu leen te ñow ngeen te ngeen. Ah, non non non woowuñu leen non non woowuñu leen. Ah, non on crée de l'information ba d' accord bàyyi leen li ngeen def ba leen ruube bi ah. bon maintenant en tout cas pour faire simple c'est juste pour taquiner également. dañu accord bëgg wax rek moy euh ni lañ fas yéene liggéey ku ci nekk la nga man ak lay sa doole nga jël ko boole ko mu doon benn parce que lu benn nit man ñent ko ko gën a man jafe-jafe yi ñoo ko bokk daanaka mais gëm nañ ni bu ñu dojalee suñuy doole ànd ak les services yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi may wax ci urbanisme ONAS UCG sapeur pompier service d'hygiène eaux et forêt waa université ñun ñëpp bu ñu boolee seen xam-xam parce que boo demee université mémoire yu bëri bind nañ ko ci lan mooy indi solution ci problème yi am fii yooyu bu ñu demee seeti ko bu ñu ko dajalee gëm nañu ni solution yi indi dina nekk solution yu jariñ ñuy wax nag ñëpp ñu ngi leen di woo ci liggéey bii nañu ñëw jàppale ñu ci xam ni defuñu ko pour ñun askan wi tax ñu koy def te lépp loo xam njëriñ askan wi la incha allahu rabbi subaak ngoon kuñ ci mënti woo ak heure buñ ci mënti woo ci la ñuy fekk li moo nekkoon kàddu yi euh, mais euh, docteur Babacar Diop maire de la commune de ville euh, maire de la ville jiite maire commune Thiès west Ousmane Diagne Thiès est Birame Souleye Thiès nord ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi wax askan wi ñi ngi ñëw

Euh, ci naaj wi ci coono bi ñu bokkook ñun mëq ci ngelaw li dàq keer dàq koor léegi c'est ils l'ont fait avec ñu leen di sant baax a baax di am yaakaar ni collaboration bi dina jur jàmm ci askan